jere ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw comme niñ leen ko diggee rek euh, di sulli scandale yoo xam ne bari na lool ci réew mi te boobu ba léegi askan bi dëgg mu jaaxle di ci bëgg ay leeral mu tëleen ticc tey dañuy waxtaanee wàllu building administratif bi xam ngeen ne scandale gënu ko rëy li waral lenn la mooy ki di président Macky sàll ba mu ñëwee ci bopp nguur gi dafa jëloon dogal na day réfectionner li di building administratif ñu mënoon ko ko nangul nag ndax nag bâtiment bi yàggoon na lool ñu bëri ne batiment bi dafa dangereux di ko fréquenter ndax ku doon dem building gis ngeen ñu ascenseur yi meloon ak lu baree bari loo xam ne jekkul tegginuwul rafetul ñu jël décision ne dañuy réfectionner bâtiment bi ba départ ña nga waxoon ci xayma ci wàllu koppar ne defaraat building bi mën nañ ko xayma rek ci ñetti milliards ñu dem di yokk di yokk di yokk ba budget bi ngi ci 17 milliards de francs CFA primature le 24 mai 2013 nous saisir direction centrale des marchés publics qui est le numéro bi 2741, MEF ministère de l'économie et des finances pour am avis de non objection pour li nga appels modi appel d'offre bi appel d'offre restreint ba procédure d'urgence lettre Bobu numéro bi 27 41 avis de non objection procédure d'urgence Bobu ma Doulegi léegi numéro 08 2013 PM SGG mon secteur général gouvernement ak d'âge, primature faute ci loolu nga xamné ne procédure d'urgence bi ndakte dafa loi bépp projet public boo xam ne dafa ëpp 500 millions de francs CFA bu jëm ci wàllu tabax dana war a lancer benn concours d'architecture kon faute bu njëkk mi ngi noonu building administratif bâtiment classé la buñ koy defaraat dafa laaj étude d'architecture ordre des architectes war ci wax beneen faute grave ngi noonu defuñu ko te ba ñuy xayma tamit war nañ wax lu leer ci lu ne ñaata lay jar wàllu courant plomberie informatique métallique équipement yeeg ascenseur yeeg group électrogène yi ak lépp loo xam ne mi ngi jëm ci wàllu taw bi waroon nañ ko xayma ba xam ci koppar ñaata walla war a dikkee li nga xam ne moo di rénovation bi maanaam lu ñuy tuddee cahier de charge bi mu leer ñu xam dërëm bu ñuy dugal fan lañ koy dugal loolu yëpp defuñu ko kon xelam war a mën a teey ca dëgg-dëgg ñaata lañ ci dugal ndax kër sax boo koy tabax xanaa di nga fondement bi lii la bu ñu yëkkatee lii la lii mooy électricité bi lii mooy plomberie bi damay tàmbali di leen benn bennal ñaawteef yi nga xam ne am na ci ñu ne déetawaay ci 3 milliards rénovation dem ba 17 milliards ñuy def ay avenant di ko yokk di ko yokk di ko yokk ba jamono jii kenn mënu wax ca dëgg-dëgg rénovation building administratif ñaata lañu ñu coûté ñii ñi ngi naan 36 milliards ñii ñi ngi naan 39 milliards ñii ñi ngi naan 36 milliards ñii naan 39 milliards ñii sax di wax na yegg na ba ci 45 milliards ci loo xamante ci xayma bu njëkk ba ñaa nga daan wax 3 milliards yóbbu ko ba 17 milliards waaye ci defar defaraat bi def nañ ci ay avenant ay avenant ay avenant ay avana ay avenant avenant yooyu yëpp nag lu ko indi mooy ci tàmbali bi lépp lëndëm kuruus beneen mbir bi ñu jël marché bi jox ko Bamba Ndiaye SA Bamba SA société boobu ku ko xam xam ko ci jaay karaw ak i wàllu cuisine may laaj rek képp kuy doomu sénégalais ku ràññee Bamba ci wàllu tabax lu toll ni building rek nga wax ko moom nag bëri na ay immeuble yu muy tabax jamono yi fii ci ndakaaru bëri na lool din ci dellu siwaat loolu yëpp marché bi jox nañ ko ko moom te financement bi teewuloon marché bi laa wax jox nañ ko ko mom te financement bi teewuloon ba nekkee ci diggu décembre la banque bobu di BOAD lebal nguuru Sénégal lu tollu ci 25 milliards pour financer partiellement rénovation li nga xamné du building bi réunion d'attribution bi mi am le 20 juin 2013 teguñu ci sax wèr marché bi ñu jox ko Bamba SA le 12 juillet 2013 ci lettre qui est numéro 000 631 PM SGG DAGE ak CPM lettre numéro 000 631 avons ñi ñu doon gëmloo société yu en compétition ak Bamba Ndiaye SA waye ba ñu la gënal benn lettre d'invitation yoo xam ne société yooyu jot nañ ko ndax bu ñu wax lettre d'invitation dañ ne 3 juin 2013 14 juin lañ def offre ouverture offre 19 juin ñu évaluer def offre technique yi ba produire rapport ak a gaaw ak a gaaw ni melax jaaxal ñu lool muy tekki rek ne Bamba Ndiaye SA tànneefu ñu nekk ci bopp nguur gi la bu loolu kenn mënu su miim te ba mu gañee marché bi tamit ay italien la dem lëkkaloog ngir mën a def liggéey bi ñu jàpp ne ci 17 milliards ci ay renovation building yokk nañ ci muy dem di law di law di law di law ba tey jii ñii ña ngi ci 36 milliards ñi ci quarante milliards ñu ne woon 2013 bu yéexee ba wéex fin 2015 lañuy jot ci building administratif bi le 31 janvier 2019 la ko Macky Sall inauguré moy temps yooyu mu jëlee rek di wër di inauguré di waaj campagne bi tuddé ko building Mamadou Dia laaj loolu yépp nak benen man ci laxasu est-ce que inauguration bobu timit taxna building bi nek building bu fonctionnel xel tey ci ba tay ji ñu ngi jël yeneeni ministère di créer sphère ministérielle fële sa jam ñaajo te dañ na woon building bu paree day tax ñu boole ministère yépp lëkkale leen ci benn place liggéey bi mën a yomb loolu la ñu dañ campagne la ca des nag bu ñu bëggee dañ ci xuus bu baax a baax a baax a baax lu tax bamba njaay esa gagné building administratif bi lii benn scandale la boo xam ne jukkil nañ leen ko tey di leen dig daje semaine bii di ñëw ci beneen scandale boo xam ne lalu na ci nguuru président Macky sàll boobu ba léegi ñu ci xaar ay leeral waaye mu mel ni lépp bu tabbi géej di leen sant leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah.